Cheikhna Keita ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay Fatou. maa ngi lay mm-hmm. yow yaay brigadier chef des gardiens de la paix à la retraite euh, jiite tamit mouvement national des policiers à la retraite euh, yu Sénégal. alors euh, mm-hmm. monsieur Keita ngeen yëkkatiwaat kàddu di sàkku ci njiitu réew mi mu daal di jublu ci seen ay mbir maanaam ay injustice yoo xam ne tegoon nañ ko ci seen kaw. ngeen ni mm-hmm. na ci taxaw balaa béy di wéy mbuus alors lan ngeen di sàkku ci président de la république concrètement ak tey fan ngeen toll yéen ci seen situation ñeel seen retraite. tamit ak euh, yu ci aju. waaw jërëjëf encore di la sant bu baax parce que vraiment li ñu may woo foofu di ma invité te toujours jàmm lay jur te dañuy dem ba ci wax ji day sotti yegg fa mu yegg ba ñu topp toogu ko waaw li ñuy wax nag yomb na parce que nit ki bu la na la kaay kaay ànd ak man kaay gunge ma ci lii ma jëm kaay gunge ma parce que dama bëgg a dem suba ñu fal ma man jekk njiitu réew ñu woolu la ci kan la jaar ci Assane Ndoye Assane Ndoye sama promotion parce que sixième promotion la bien que inspecteur la ñu jaaroon ma maa jaar fu ne tase fu ne vraiment mu nekk nit aussi baax bon bi mu ñu yóbboo ba foofu ñu wàcc bi ma wàccee bay waaj a pour ñu ubbil ma sama téléphone dafa sonné ñu wax ma am na ko autorité ma wax na waaye bu waxee loo xam ne intéressé nañ te war na jëmal suñu moment bi kanam incha allah xamal xamal xamalal kooku la yabal nga woo ma na ko incha allah fas ko yéene gunge ci loolu. lan moo tax ñu woo la daam loo diggaale woon ñoom. waaw li ma duggaale woon ak ñoom ñoo di xam nañ ni bi may diriger mouvement bu fort la. Mm. parce que mouvement boo demee ba ëmb région yëpp ëmb département yëpp fépp nga def fa cellule te xam nga ni alkaati yi ñoom comme ni ma leen macha allah euh, ay borom njaboot lañu. te it am nañu ay sympathisants yu bëree bëri parce que vraiment euh, dañ koy wax waaw toog kilifa yi nekk ci rek ci biir mi sax boo leen xoolee tey ñu bëri ay doomi alkaati lañu maa ngi commencé ci Mouhamad Boun Abdoulaye Dione mm. papaam alkaati la woon moo ko Abdoulaye Daouda Diallo papaam alkaati la woon ainsi de suite ainsi donc ñoo dama lay wax ni tey jii tey donc ñun ba mu ñu wooloo ñun dañu waaxu dem ba ñu demee yegg ci moom nuyu ko fekk nañ foofu ñu wax mbay Ndiaye moom lañ ko nommé ministre de l'intérieur euh, soxna si it Marème Faye Sall vraiment fex moo ñu ubbil euh, tasagal ñu tegal ñu ceeb bu neex a neex duñ ko fàtte mm. wax dëgg yàlla mm. ñu demee ni waxante ak moom maa la woolu parce que dama lay xool ci presse bi di xool sa mouvement ni muy yëngatoo te vraiment doo parti politique te mais yaa ngi yëngatu yëngatu boo xam ni fii nit daal am nañu fulla am nañu fayda mm. tey dama bëggoon ne dama bëgg di sakku ne nañ ma réew te am naa yaakaar ci yoon ancien ministre de l'intérieur noonu mën ngeen ma indil mën ngeen ma dimbali ci fànn yu bëri mm-hmm. mu di ay renseignement su ma soxlaa mën naa ko am su ma demee ci zone yoo xam ne ay zone trouble ay Casamance yooyu sa ña fa nekk mën nañ dugg sama protéger di ma protéger parce que xam nañ zone bi beneen mën ngeen dugg defal ma ak nit wax ñëpp ba wax ni li tax ñu tànn kii bu ngeen wotee ba pare bu ñu wotee pare ngeen toog euh, aaral ma guré euh, yi ba nga xam ne dara du ñu faagaagal du fa nekk loolu yëpp mu wax ko ma jël engagement bien que ànduma nag kuréel Jabel Diop sama brigadier chef gardien xarit la. te mhm. mouvement bi la bokk ñu ànd ma ne ko d'accord naa ci loolu su ma génnee naa koy mais nag yow dafa am lu ma lay sant ñëw ma fi pour wut poste li ma fi ñëw moo di premier point moo di dañoo dàqoon 87 toroxal ñu Abdou Diouf a ko def. Mm-hmm. ba ñu ñëwee six après am nañu yow mille deux cent soixante quatre toog juróom-ñaar ay pension yu bon lañu am fukki junne ñaar fukki junne ñett dama bëgg nga mu ko beneen bi mooy indemnité ñaari bi mooy dama bëgg ñu appliquer ñu pension mutuelle bi nga xam ne loi ak décret moo ñu ko jox ñaari statut yëpp soixante six soixante dix huit ba léegi joxuñu ko Senghor ba à nos jours beneen bi mooy incohérence yi nekk ci nouveau bi nga corrigé ko wul cinq mille doy na cinq trois ans cinquante cinquante ñu dem li ñuy jaaxal mooy ñun dañoo téye lan moo ñu téye si ñëw ñu ak contrat autorité bi pour ne dañuy toog fii mm. déedéet jot circulaire bu Cheikhou Cissé ancien DGPN moo ñu fa téye añu paree ba statut bu ñu effectif boolewul ci pour bokk nag cinquante deux ans lañ bokk wala cinquante cinq ans ñu ne mm. cinquante cinq ans lañ dem retraite donc bu fekkee mun leen ci boole ngeen ngeen indemnité yi usures yi ngeen def sonnool ñu ñetti at durant te ñu koy laaj ñaata ngeen ñu jox ndàmpaay. Hmm. loolu moo mën a am beneen bi mooy dañu révaloriser indi euh, grade ak euh, indi su anciens yi retraités à cinquante deux ans cinquante et pour ñu bénéficier des avantages liés au nouveau statut du it ñaan quatre vingt et un mooy loi bi ko jox à l'article vingt neuf waaw loolu beneen bi aussi mooy dama bëgg nga def session logement yi nga xam ne retraité ak boobu de retraité ñoo nekk ci plan de garde yi nga xam ni police daf ko hérité woon en 1969 bi da nga war tasee garde républicaine reversé personnel bi ci police malheureusement boobu autorité police boobu newu ñoon à ay administrateur ñu toppatoo wuñ ba yëpp daanu la fa jóg mooy retraité ak boobu ñoo jël seen xaalis cotisé wala leen dugg feneen hmm. réhabilité ko am na ñoo xam sax ne nga fa dëkkati bi li ñu remarqué mooy bëri am na ay fonctionnaire bëri yu dem foofu morceler ci biir temps ba jaay ay siwér ñu tabax ko hmm. waaye ndax ñun mën nañu génn sax dàq toj ñu ne kër yooyu loolu lañu bëgg daal nga réparé ko nous sommes prêts nag boo jëlee engagement dañ pare ànd yow gunge la ci lépp def loo xam ne kenn defu ko mu ne waaw fas naa yéene incha allah su ma yàlla mayee pal incha allah naa def loolu ma ne ko incha allah dugg ñun la ñu ak suñu Abdou Aziz la ñu waxoon rek ñun ay malaayka yu nekk ci suuf la ñu yàllaa ñu yebal ñu doomu aadama yi donc li ñu reñaana incha allah da nga fanu ma génn di wax nag benn précision tekki. Hmm. di waxuma ko ci tubaab moo di. nañu campagne dugg nañu fu ne jël nañ ay risques. Hmm. dem nañu Casamance menacé nañu def nañu léegi mais benn dërëm ba gën a tuuti excellence joxuñu ko woon pour ñu battre campagne. ah oui seen moyen bopp ngeen demee propre la ñu demee woon moom la ñu demoon. Hmm. ma dëgg dëgg sërëx sax ci biir ne oto bañ doon dawalee sax. Abdoulaye Wade moo ñu ko joxoon parce que ministre de l'intérieur ba fa ñëwoon Ousmane Ngom. ba mu ñu ci la ko joxee ci oto boobu la ñu campagne boobu hmm. waaw oto boobu oto am na ku ñu santoon sax na nangu ko ci ñoom. danaa wax turam tey hmm. mais boo fa leen ni bàyyi leen jaabu tout tranquillement day liggéey bàyyi leen jaabu oto bi rek moo ko jox du ma ko nangu muy directeur général bi sama muy ko dendee ñu dellu di ko sant di ko gërëm hmm. parce que loolu moo ko def dañ koy jëfee noonu donc tey ji bu ñu toogee ba 2011 2012 ma falu ñu xaar ba vingt deux mars mu recevoir ni mm. ne incha allah danaa defar yépp li ma leen li ma li ma digg woon la yoon ne ne tey la dimanche alternaax Abdoulaye Daouda Diallo mu teg commission boo xam ne moom moo koy jiite ministre des forces armées ministre des finances de président de direction générale police nationale ak yéen ngeen toog waxtaanee lépp ngeen jébal wax ci fii ma toppatoo lépp. Mm-hmm. ku ne woon directeur général police. Omar Mal mais ba léegi gis ñu dara dégguñu dara. nangul hmm. ñu décourage ñu tontu di bind di wax rek ak ci tey ak teggin bo ba mu faluwaat deux mille dix ñu toog ba heure bi tey ñu may woo fu ne yaa ñu dugaloon ci lii yaa ñu defaloon lii yaa tax engagement yi dugg na fii di lu ñu dal ëllëg yow la waaw man nag tey mënu ma lu wax. du ma wax kenn kon boobu ba léegi président Macky Sall li mu leen waxoon defu ci dara dara dara. ban benn point la am mooy deux milliards deux milliards yi mu versé pour rajo yi ñu ko ci sant bu baax bu ko neexoon du ko def. Hmm. ba ñu indemniser leen jox seen pension kooku moom vraiment ñu koy sant bu baax mais yeneen point yi nag. vraiment ñu ngi toog statut beeg yooyu statut bi pension militaire ak yeneen ak yeneen ak bi mu def ci logement euh, kii dañu jël décret bi ak charge de police bi mu ñu war a remercier beneen bi mu ci yokk mooy waaw ñi nga nal ba lee faalewul la waat la ñu gëm ainsi de suite mus ñu ko topp di ko xeex ba korog bu falu faluwaat ñu doog a daw dem ci moom leen jox ay poste de responsable waaye ñun wa ñu féete ñun dañu amul ay cadre wala ñu dañu amul jàng wala dañu amul xam-xam mais nañu xotaat jëf yi bu baax donc loolu moo tax ma lancer ce cri di wax excellence monsieur le président ñu àndoon la yow ci ngor ci teggin ànd yow da mus ñu wax fippu mus ñu wax wax ñu ñaaw musuñu la critiquer ci dara te nekk yow boobu ba léegi ñoo lay wax nag de waaye du jot jot na moo di la nga waxoon te woon ak ñoom jëfee ko waaw. d'accord alors ah, commissaire ah. Euh, ñuy ñëw nag euh, ci seen situation ah. tey naka ngeen euh, di dundee yaa ngi wax nañu bari seen njaboot yi ñu fi bàyyi woon daanaka ñu ngi ci ay tolof tolof yu metti ndax mun nga ñu wax un peu ci situation yi ngeen nekk yéen policiers yi retraité waaw waaw métti na boo toogee tey sa pension baaxul pension bu nga am boo amul trente de service trente ans laa wax fanweer boo ko amul bu parce que at ay at ngay duggee boo duggee âgé ci police bu noonu def trente ans de service boobu pension bon nga am soixante dix ans quatre soixante dix mille francs lan nga ci mën a faj alors que bu ñu appliqué la pension militaire tey boo defee vingt cinq ans de service am nga pension complète loo ci teg ci at. ñun dañ koy jàpp comme arme de campagne def na ko au double. charge de police bii ñuy laajte aussi mais c'est normal man damay dox ci ne am na ñu jox ñu ko beneen bi moo di vraiment ñun euh, dañu bëgg ku ñu ku ñu koo xam ne dañu kii parce que tey loo gis tey ñu wax insécurité wax ñu koon fële insécurité bi indi loolu moo ko indi alkaati bu fekkee da ngay dem liggéey ci su ma defee lii ñu def ma ci kaso bi su ma yëngatoo fii ñu dugal ma ci kaso bi mais nga moytu da ngay daw mais loolu nag arrange wul population hmm. bu fekkee agresseur bu dóoree alkaati bi ñu ne jàmm jàmm am bu jàmm am na bu bu alkaati bi titee wax mu dóor de mais bu ko joxoñee sax ñu ni waroo ko joxoñ droit de l'homme jóg ne nañ ko mu 23 juin wax fàttali ñu Fodé Ndiaye mi dawoon ak arme dugg ci ni wàlloo gars yi jàppaat du jox toj bopp bi est ñu ngi koy wax waa yu bëree bëri yoo xam ni fi ma ne ko Mouhamed Bougalet ñu ne moo rey. Euh, Basirou Faye wa Basirou Faye est-ce que ñu ngi ciy wax waxuñu ci te pour pourtant dañ ko harcelé mu daw te am na ci étudiant ñi du moom waaw du moom tey ñuy gis loo xam ne c'est patent waaw et je le félicite parce que il a le courage am na courage wax ko. Mm. le ko la ndar à l'université mal naa tiré parce que dañ ñoo faa bëgg rey samay élément j'ai tiré mais yoon la ko teg. Bassirou Faye même condition yi la ne woon mais nañu bàyyi légitime défense bi dañ ko war a élargir ba nga xam ne ku yore sa gaa ci jëm ci alkaati bi am na fetal daw jëm ci moom amul droit jël arme dafa war a daw loolu mooy lan loolu du loolu du insécurité mm-hmm. ko wax de mm-hmm. waaye nag am na ñoo xam ni ñoo bu ñuy génn seen bureau lu ñuy def seen malet ëpp na trois millions quatre millions. Hmm. am na ñoo xam ne ku ñu deux ans après nga tabax bilan euh, milliard terrain jënd terrain deux cent millions. am na ñoo xam ne ñu ngi fi car rapide yi daw ñeneen yi daw waruñu am droit visite te tey dañu am visite la preuve mooy camion bi mbëkkoon foofu yof hmm. ba ree ñetti nit ñi kooku boo ko contrôlé am na visite technique def ba donc dañuy wax ni corruption bu ñu wax alkaati alkaati bi dina corrompu corrompu dafa arrangé ñoo lekk duñu naan parce que tey ji tey bu ñu defoon contrôle rigoureux car rapide doom njegeñaay dootu doom te bu boobaa seen kër duñu ko donc car rapide buy jëm yenn yi di ci arrangement la de les Sénégalais lekk ko ak seen njaboot ñooñu la ñoo ñooy corruption mais la corruption newul ci niveau gendarme newul ci niveau policier. d'accord léegi commissaire ñu wax nag ci seen naataango yi nga xam ne ci corps militaire la ñu nekk wala wala paramilitaire. Euh, barki ba am na policier bu dóor boppam bal faatu lu ko jiitu aussi keneen defoon na ko ab douanier rey doomam ca Mamel mu mel nii euh, yéen ñi nga xam ne ci yéen la ñu séenoo woon dal euh, tey ay def xëy na mbir yoo xam ni dana jaaxal ñu bari loolu noo ko jàngatee ak ki sa xalaat lan moo ko waral. am na li may li aral mooy liggéey bi dañ ko xeeb xeebu xeebu ci liggéey bu métti la te am na poste yu nekk ci biir police wala douane wala gendarmerie wala feneen vraiment ay poste de responsabilité te dañuy dem ba nga xam ne yàlla rek moo dul juum mën nga dem ci bu nga nekk par exemple tey li xew passeport li xewoon na pour Parcelles Assainies ki ne woon durée de contravention tëju tëru bal lan la au fond approfondir enquête bi lan la lu waral lool lan moo taxal lool parce que du question ni affaire kii la mais mën nga séq ak doomu aadama parce que ngor ak dafa dafa amatul loo xam ne nit ki mën nga séq ak moom sax mu jël teew lu bëri sa ngor ba mën a permettre nga muñ loolu mais doo ko def tey da naan ah dawul buur la ndigal ma dénoncé ko te def na la feneen lu gën a ñaaw loolu nga ni pattee ko noppee ko donc ñooñu boo demee ba nga xam ne bu xëy na man bu ma ko defoon mën naa ni risqué ne d'accord je préfère ma dem kaso ba ka ma xaru parce que xam naa lan moo nekk ci xaru dama jël samay responsabilité dem xaru ji donc du ma xaru donc am na ñoo xam ne mënuñu ko mun donc il préfère ñu mettre leur fin à leur vie parce que contrairement à tout ça beneen bi aussi am na lu ma fàttewoon am yàlla mystique aussi yàlla mystique dama lay wax man kuuma ko ba ma nekkee circulation dama daan jàkkaarloog nit arrêté ko bi muy ñëw di indi ma pièce yi mais maa ngi koy gis muy force di jat di ñëw boobaa yëpp dafa am yàlla mystique y a sax parce que on court énormément de risques mm. ci yooyu situation donc tey jii tey li xew nii du dara mbir yàlla la euh, mbir la aussi nit ki euh, bu mënul téye responsabilité man de su ma ne woon fu ma mënti nekkit lu ma fa mënoon ci jërit du ma xaru mukk elaayu mu dini mm. donc loolu mooy ko du question euh, dara mais mbir la loo xam ne yàlla fu mu la jaarale foofu ngay jaar fu mu la war a jaarale foofu ngay jaar du lu ñu bëgg lu ñuy séntu ci ñun ñun dañu war a nekk ñoo xam ne ay personnalité dominante yoo xam ne dañu war a aar lépp nekk ci kanam kaw lépp pour wan nit ñi nekkat kat ñun kat ñun taxaw nañu mais nag aussi état bi daf ñu war a jàppale douanier gendarme militaire jàppale ñu ba nga xam ne yu mel noonu waru am parce que tey jii tey xoolal tey alkaati yi retraité amuñu kër nu toll. Hmm. ak bu gendarme ainsi de suite. Côte d'Ivoire par exemple léegi sooy génn école na sa oto pare na hmm. yaa nga sa oto mais tey pourquoi Sénégal mënu ko def tey jii tey xoolal di xew tey ci affaire distribution vivres yi ba ci Covid 19 bi tey lan la jox alkaati bi te ña xam ne dañuy newoon rek di surveiller ni ñu koy joxe ñaata millions la ñuy recevoir ainsi hmm. mais injustice boobu moom la a dindi. yaa ngi wax aussi beneen injustice bu am ci police maa ngi dikk dinaa beneen bi mooy injustice bi ñu dégg nii man nekkatuma alkaati retraité naa maa ngi dirigé un mouvement mais ñoom ci man la ñu yaakaar naaw yàlla yonte parce que mënuñu wax ku mënul wax nag boo noppee da ngay nopp sa xol nga ko nekk te mën na jur lu garaaw. Mm. parce que nan nga mën a commandé ay nit nekk trente quatrième promotion. 34 35 38 promotion bu ci ne deux ans la ñu rawante muy six nga rawee ku ñëwee ñu génn. nekk stagiaire nekk yow nga nekk seen chef de brigade di leen commandé di leen diriger di def lépp leen jàngal ñu xëy suba di rek daal leen nommé brigadier yow ñu ngi leen commandé ñu bàyyi la fa nga nekk mais c'est irritant c'est de l'injustice hmm. loolu mën na jur lu ne parce que est-ce que kan ñu kan ñu kan ñu commandé tey mu nekk kilifa toogu te mérité wu ko parce que yéen a di comme ça ne noonu noonu lay commandé waa jooju donc autorité bi maa ngi koy alerté muy ministre de l'intérieur muy le directeur général de la police nationale Ousmane Sy ku am fulaak fayda la yaakaar naa ne yooyu war na ko mën a diri réparer ko d'une façon immédiate parce que s'il y a lieu même d'enlever ces grèves là pour ñe ñële ci seen yoon loolu mooy yoon parce que loolu mooy xaw ci statut bu bees fii statut bii nga gis ni ba mu devenir effectif le vingt neuf mars eh, euh, le vingt neuf le vingt neuf euh, mai deux mille neuf mais vingt huit mai deux mille neuf mais luñ ci au lieu que ñi nga xam ne dañu war a avancer ñu avancer wala ñu acquérir ñu conserver seen acquis brigade chef bi jël exemple au lieu mu avancer nekk quatrième ou euh, mm. quatrième échelon loolu fu mu ko fu mu ko wér fan la ci wér am nga monsieur nit ñu koy nommé ci indice avant mu yàgg ci grade bu loolu la nekkee grade tel nga jël indice tel ñu leen dégradé loolu mooy damay toroxal au moment où il y a la prise de deux poids deux mesures je le dis haut et colonel bi bu doon APJ comme ñun au lieu ñu dégradé ko mu nekk commandant dafa passé commissaire mais c' injuste ñu am ñu passé au grade les subordonnés ñu leen passé à l'indécis loolu mooy lan hmm. loolu moo war a doon police police dafa am injustice ci biir nekk ci biir police yi ci biir corps bi loo xam ni dañuy faagaagal ñi nga xam ne amuñu doole loolu la ñu war a dindi nit ki booy tabax da ngay commencé ci suuf jëm ci kaw hmm. mais mën noo tàmbalee ci kaw wàcc ci suuf tout ni Euh, koor yeneen koor yi gendarme et autres yokkal nañ leen ba cinquante huit ans. Hmm. tey les agents de police bi xam ñooy def liggéey bi yëpp ñu la bàyyi leen cinquante cinq ans te yoo xam nga ni cinquante cinq ans boo ko retraité mën nga dem encore. Hmm. mën nga demaat ba trois ans après. Hmm. loolu perte état bi la parce que tey jii tey aller en France. soixante cinq ans la ñuy retraité pourquoi ñoom ñuy wër mais expérience mooy liggéey du question doole mën nga dem ba ñàkk doole am expérience di ko jàngal xale yu ndaw yi mm-hmm. donc dañu war a corriger loolu yëpp y'a beaucoup d'incohérence dans cette police dans cette police là pour ñu corriger ko ak feneen ak feneen en tout cas daal mm-hmm. waaw li ñuy wax madame kontaan nañ ci invitation bi. jërëjëf waaw vraiment di jaajëf bu baax a baax. ñoo la gën a kontaan Cheikhna Keita brigadier chef des gardiens de la paix problème. merci beaucoup jërëjëf merci jërëjëf.